Dakar Instant. 72 heures caravane Bamba la paix ñu andi ci groupe express ak les racines de l'espoir ak Sofia Kara solidarité ñu nan ko SKS ak wa LSD records ñu gën ko xam ci ñom lay jaay liko waral ak liko taxa jog moy manam jappale ñi nga xamanteni bi ni caabi daf leen féete ginnaaw te ñuy ay tout tank ak ñi nga xamanteni bi ni seen loxo seen ginnaaw te nekk ci hôpitaux yi tëdd donc weer bi dafa nekk weeru partage dox ñu suñu bi si weer bi weeru partage la weeru weeru la. date bi incha allah le 30 la le 31 ak le 1er juin incha allah concert Zikroullah bi ñu ngi ko fas yéene amal fale ca Gueule Tapée rue Seydina Ousmane précisément ci boulangerie Ndamal Daaru. donc ñu bëgg koo fësalaat bëgg ci àndaat bëgg dimbali ñi nga xamante ni seen loxo jotul seen ginnaaw. Page Facebook Dakar Instant,